Eh, va essayer de rentrer ici, hein? À l'intérieur? Oui, je vais essayer ça. Ah bon? Ah je gêne pas. Tu vas payer le loyer. Eh, je vais tout gérer. C'est moi qui t'a dit ça. T'es sérieux? Non, sérieux. Vous les vous, vous aimez dire Non, non, non, attends, attends, ne, ne, ne, ne dis pas ça. Ne Je vais gérer, je vais gérer. Hein? Ok. Oui, ok, on va discuter quoi. lii léegi loxo lu mu doon sa waay eh wuy ma sa waay déglu ma wax la wuy ma waxal la yaa may dégg yàlla man kër gi man man man jo man ñàkk jom moo tax may ñëw si kër gi xam ak ñàkk bi nee naa ba eh, eh, yow eh, doon noppi yow xanaa da nga ma fàtte ah parce que rasulullah wuy ma sa waay dama lay jàmpaaka tàdde yow da nga yow da nga bëri wax yow ah, ah, bàyyi fa nànk rek. waaw wuy ma kii ma yooyu muy def ay yuuxu ak ay affaire yooyu day tagg ci gaale bi ah. déet Fall nànk dangaa nekk ci sursi Fall. moom de nànk rek. na ma baax bàyyi njëkk na wax la moom. lan la xam na ma xam. kii waaw waaye jëm baa nga taal. non déedéet Fall wax la moom de. sëñ bi siyaar naa la naka mu yaay am jàmm naka njaboot bi soxna Xadi na nga def yaay ci jàmm naka koor gi alhamdulilah bàyyi ci jàmm ñu ngi sant bu baax tey de dama xawuta am jot ah, dëgg la dëgg la dëgg la dama bari fi ma war a jaar te tey la vendredi ah, dama war a dem jàkka ja tafsir yi dëgg la dëgg la ko bu ko defee daal waaw mhm. ma baax na. Ah, ñun moom weeru la. dëgg amu leen benn jot. moom lii laa la baaxee la woon. bismillahi bismillahi arrahmanu arrahmanu arrahim arrahim bismillahi bismillahi arrahmani arrahmani arrahim arrahim bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim loolu laa lay baax ah, euh, soxna Khady ah. moom xam naa ni ferwu bismillahi rahmani Euh, bu ko defee. waaw. baa. baa. siin. numéro. numéro alif. alif laam. laam. alif laam laam. asaxeer. asaxeer. baa. baa. siin. numéro. alif laam laam. asaxeer. asaxeer waaw yow bu ko defee loolu laa lay merci vraiment kontaan merci. waaw ah, kay. nafaral nafaral. waxal. jàngal sa bopp jàngal sama bopp rek. wax ci kaw muy dugg sa xol. waaw incha allah dinaa dinaa. bismillahi rahmaani rahim ah. waaw bu ko defee man maa ngi daal di yegg kër gi ndax dama am war a jaar fii kër Ndiaye. Uh-huh. daal di am ñu ma fa jàngal te bu ko defee dama war a dem jàkka ja comme ça tey la dama war a taf si. dëgg la ko defee maa ngi merci waay moo tax baax na baax na jërëjëf naa jërëjëf waay jërëjëf kii oustaz sa sa bi merci ah bismillahi rahmaani rahim waxal. fës fës ma def ma jàng xam naa dinaa ko jàng. boo mënoon mu xam naa ci as tuut. ma gàggante la. dinaa ko jàngal fii maa fi sa kilifa. dinaa ko jàngal bi jaay yu jàngal sa bës alxuraan lu tax mu neex bis boo ko manee ba koy araabal ah, mar de taal yi. macha allah alxuraan man foo ma jàng ko comme arabe bi ñu koy jàng. ko jàng bu baax bismillahi rahmani rahim. bismillahi rahmani rahim. bismillahi Bonjour madame. Bonjour. Okay. Okay. Euh, je suis venue pour payer la loyer. Ah. La jambe. C'est bon. C'est combien? Euh, c'est, c'est, c'est 50 eh, Alice, Bogolo, tu m'as donné 20 000. Ça euh, reste... Euh, le reste, ah. By far, Baye Falloum na tu connais pas Baye Fall. ton petit frère. oui. va payer ça. eh bëgguloo la wax de. cinquante mu jox ma vingt mille mu ne man Baye Fall baay Fall kañ la ñëw ak kañ la xam ak kañ la xam ak ñag bi loolu moo jëral li jëf si. jóguma si dara. ah. xamoo si dara Baye Fall moom lii moom dinaa ci jóg. ndax ba mu ñëwee ba tey ay problème rek ginnaaw lu des lu weeru koor gi bariwul yomb naa muñal na waaye nag yàlla ñëw na jël loo waxati ah sukaru koor gi waaw ah. merci jërëjëf léegi jeex na waaw aca ah na ah. ah, nga nafar nag bul fàtte nafar gi ko fàtte dama koy jàngal léegi waaw danga koy waaw kay man sa danga danga jàngale bismillaahi rahmaani rahiim Baay Faal man Baay Faal Baay Faal Baay Faal beneen kaawe bi noonu Faal kañ la yegg ak Faal kañ la xamante ñett yi ba ma wax bëgg la toog fii di ma jox ñeenti junni ñuy wax mu ne ma Baay Faal Baay Faal ah déedéet Fall nag mu ngi bëgg euh, mu ngi bëgg exagéré eh, eh, eh, sangu ka deux jours yi ma am si biir kër gi yëpp gisuma nga sangu yow jin nga yow yow yaa dul nit ka ngay sànq. Eh, dama ne dugal si biir paan bi laa la nga lay ay eh, la wala dugal laal da ngay dugg wala doo dugg. a laa def si eh, dugg wala doo dugg. déedéet sangu ba de force la nag force naa la simbi sangu la ba nga yow nit la wala lan nga def nii ah. tonton dama foogoon ne xale la. waaw yow yow fóot laa fi indee wala fabeere wala sang. Ah, kii mooy sama dama gis sangul di ñaari fan yi ma fi def. yow lu soor sa ñàkk sangoom yow da nga sang. kii magum jëba nga naan xale bu ndaw. pour man de ah, xale la kii ko eh, jabara ngi mu ne ngi nga naan gërëm ay kii ah xoolal kii da ko koy rey. Ah, tonton yow yow yaa ngi mama ma yaa ngi mama laa wax doomu baal lekk. yaa ngi mama ah waay ah kii kii baalu lii sax waay